السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى حقدة من لساني يفقه قولي مبكي سنغال مبكي أدنى بيب نيجي لين دنيو دي لين سيارة كي واخا جين موي عبد القدوس مبكي بو سيرن مودو فاتي خري di ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha al yàlla sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal bi mu naal fa yéene àggale liggéey baayam yu baaxee magam yu baax yàlla jàppandal ko dolli ak wéram te fiq aw fanam barki xaalim rasul bu loolu weesoo nag tey ñu toog fii ci tuubaa ci Daaru Salaam Ah, ma nuyoo leen mbooloo mi nga xamante ni ñoom laa àndal te kenn ku ci nekk jóge ci ak kër teyit di ci ñoo xam ni kenn ku ci nekk kër ga nga jóge mën ngaa dem ba nekk xalifa ba teyit kenn ku ci ne penc ma nga jóge itam am nga ca ndigal doog a ñëw toog fii mu mel na boo xoolee njabootu sëñ Maamoor Jaara ñu ngi fi toog njabootu Seexul Xaddim ñi ngi fi tok njabotu mam Cheikh Anta daru salam ñi ngi fi tok wa daru Moxti ñi ngi fi tok wa palen ñi ngi fi tok seigne mustapha Fall seigne Mout Aminta Fall Ndulo ñi ngi fi tok wa Afe ke seigne Abdou lakramit ñi ngi fi tok cheikh si keur cheikh si ñi ngi fi tok wa lamba itam seigne mustapha Diouf mi ngi fi tok kon dafa tuba tay delu <clears throat> Touba mo bëgg delu ci histoire ndax sa yu jadu natuba dem ba tollu ci ay yëngu-yëngu jaadu na Touba joxe position tam nek position bo xamanteni ni njariñul senegal rek lay doon kon tay li fi daje fu mel yoonu murit wépp ño fi dajé jël kaddu gi tek ko ci sama loxo ne naa ko jàllale ma leen di sant ci loolu bu baax mu mel ne réew mi dafa toll foo xamante ni waxoon nañ ko ne leen président Macky Sall dafa am responsabilité bu rëy ci kanamu histoire ndax damaa yaakaar ni am réew bu ñu la ko dénkee fal la démocratiquement suñ demee ba ba ba war a dem ci ay élection ndax sénégal yi amuñu benn benn bis amuñu ko ñëw si benn bis rek lañ am mooy seen carte seen carte woowu bis bi ñuy dem ca mbañ gàcce wane waaw wala ñu ni déet ñu seetlu ne Macky Sall bi mu ñëwee ci Sénégal ba léegi pexeem yi muy pexe yépp mooy nan lay nase ak a nocci ba confisquer àq ak yelleefi sénégalais yi loola ma nga tàmbalee ca parenage bi ba mu koy teg ku ne xamoon na ni lii mu def tey jii muy bloqué ay candidat moo yëkkatoon parrainage sa bañ ko waxee itam histoire jox nañu dëgg carte d'identité sénégalais yii mu defar ko ba pare téye ko bañ leen ko jox ndax bañ sénégalais yi wote loolu itam lu ñuy ñaawlu la bu loolu amee itam jël ab carte d'identité defaral ko nit jox ko ko ba noppi bind ca ginnaaw ne ko jox naa la sa carte d'identité waaye amoo droit voté loolu yaakaar naa lu ñu war a wax la te réew mi dafa jot sëkk kilifa yi diine yi taxaw wax ak Macky Sall dëgg xamal ko ne ko yoon wii nga tegu du yoon wu jëmale am réew kanam ndaxte bu fekkente ni yow dañ laa fal démocratiquement ñu ñëw soxla sunum réew nga wax nañu carrément ne man dey musuma toog ne Ousmane Ngom du organiser ay loolu du dëgg moom moo toogoon ne Ousmane Ngom du organiser ay élection te ba nga ko waxee Ablaye Wade dafa amoon ngoru teggi Ousmane Ngom teg nee tey jii mu jël Aly Ngouille Ndiaye te ñun ñu xam li nekk ci diggante moom ak Aly Ngouille Ndiaye ak dossier wu ArcelorMittal la lañ cee xaar ñu xam ñoom ñu xam ko sénégalais yépp xam ko seen diggante ak dossier wu Big Togo kon mënuñoo jël seen seen seen bëgg-bëggi bopp na ñoom ci lañuy yor senegal loolu dug dëgg te nag alxuraan daf ni وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بقت إحداهما على الأخرى فخاتل التي تبقي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن لا يحب المقسطين القرآن نانا نياري غروب بون جوتي دي خلو ولا ني خيخ دا نين دي اند جيبو لين سي او يو باج دبو سي او يو su fekkee nag da ngeen leen di jibóole benn groupe ba nag gis boppam jaay doole ne maa am doole ma am doole maa lànk ànd leen sot groupe bu beew booba duma ko ba mu yàlla julli la santaane te foofu lañ tolloog Macky Sall lii ñuy wax nag sunuy sunu sunuy bakkan lañ ci teg sunu kaw lay jaar jàll waaye duñ ko may mukk lii mu fas yéene def ci réew mu def ko ci réew mi ndax réew mi moomu ko te duñ nangu Sénégal makki Sall taal ko te bu taxawee fii ñu naan ko Aliou Ngouye Ndiaye du organiser suñu élection mu ni duma ko def déedéet Macky Sall da nga ko def Aliou Ngouye Ndiaye du organiser suñu élection te lii ñu la wax nag yemuñu ci wax ko dinañ sol suñu dal dem fu ñu war a dem jàmmaarloog yow bu li weesoo nag manifestation yii ñuy def itam nañ ko tasaare wax naa ko opposition bi waxtaan naa ci ñi nañ ko tasaare bu ñuy upp bu ñu dematee place de l'Obélisque def ay manifestation na ko waa Pikine def waa Guédiawaye def ko waa Touba def ko waa Ourossogui def ko waa Matam def ko waa Ndar def ko ndax Sénégal lañu am ñun amuñu feneen bu fekkee moom daa am fu mu jëm bu am kër Boston bëgg faa dem na dem Boston ñun amuñu ñun fii lan am ñun Sénégal du nangu ko ko taal ndax amuñu feneen nu fenn fii la nu am kon nañu organiser ay élections yu transparent nit ñi dem ci ay vote ñu voté ku gagné ka ña nal la jàmm félicité le Sénégal continue waaye dugg ci say dossier ba lap topp Ousmane Tanor Dieng Abdou Diouf mi ñu dugal na ci ay erreur nga dem a dem a dem ba nangay taal Sénégal boo ko waxee waxoo dëgg kenn du la ko may loolu na ko xam. la beneen ba ca dooleeku mooy ñii fi kenn ku ci nekk boo jógee ci kilifa la yabal te ci am pénc ngay dellu te pénc ma nga dellu amal nga digal doog a ñëw wax naa ko ci njëlbeen kon nag war naa xam lii ñu koy wax lu mu barki démb la ñëw fii jël suñu kilifa yi teg leen fii kànka ba fa sëñ tubaa di wàcc timis sa ko fekk sëñ tubaa bu bañ a faat waxtu mu dij ñu fa ña dem ba tey jii julliwunu waaye nag ñun duumunu ndax ndokk ba ma fekku sëñ Muntaxa loolu lu la ñaareel ba itam nga jël ab contrat BOT bill opérateur international ñu woyu Ila Touba leen Ila Touba ñi ko fi indi ay commerçant yuy jaay képp lañ seen marchandise lañ jël Touba moo gën a bari oto fi la oto yi gën a yombe fi la ñuy gën a récupérer seenub xaalis ñu ñëw indi ko fi képp waaye bu ko bu Tamba ëppoon ay oto ñu yóbbu ko Tamba bu Ourossogui ëppoon ay oto ñu yóbbu ko Ourossogui waaw loolu am na ba pare nga daal di dem daal ne contrat bi léegi pour ma wàññi ko ma wàññi ma wàññi ma wàññi njëg gi yemale ko Touba ba ba ba Dakar 5000 junni daa dem bi négocier contrat ba yokk ca fukki at au lieu ñuy fay léegi 25 ans autour bi léegi 35 ans lañ koy fay bor yooyu lan moo tax ñu ñu koy lebal parce que am nañ pétrole am nañ gaz ñu continuer du ñu endetté ba noppi ne ñëw di ko man da jël sama da nga sama alal ab tronçon cent cent quinze kilomètres Touba nga def ci 600 milliards ba noppi ne ñëw ne 400 milliards def ci 600 cent quinze kilomètres fan ngeen ba noppi yaakaar ni nit ñi dañoo dof yooyu lañ lañ war a la Macky Sall war a bàyyi ñaareel ba mooy train wu terre bii 1400 milliards nga jël ko def ko ci ab train boo xam ne mënoon naa départ Dakar dem frontière kaay départ Dakar ñëw Touba départ Dakar dem Saint-Louis nga jël ko yamale ko ne ñu Blaise Diagne laa ko yóbbu aéroport Blaise Diagne ba ci biir mënatu la nekk nga ni ko yamale port ba jam ñaajo procès 1400 milliards xanaa xanaa bi kon ay ay jamaa lay transporté benn sécuriser wu benn projet boo xam ne sécuriser nañ ko amul parce que projet boo xam ni yaa ngi tey raay bi nga lal loo teg bu guddee ferraille pauvreté bi ak nit ñi ñàkk gi ci dëkk bi tax nañ ñëw sàcc fe euh, euh, bolon yi def ko ay ferraille yóbbu yooyu genre projet bidon mooy yan projet est-ce que loolu la Sénégal soxla saa yu nawet amee ñu ngi ci mbënn bi fi mu toll déggatoo kenn waxati ci wala ñu ko waxati déwén ne Touba nekkati ci am mbënn li ëpp ci kilifa yi toog na ci yàlla ñenn ñi défendre tuñ population bi ndax population bi intéressé wuñu leen seen procès ak intérêt ñoo leen ñoo leen moo intéressé loolu dem na ba indi ndax am écart bu am ci diggante population yi ak ak ak ak ak ak sëriñ su bare bare bare te loolu jaaduwul loola nag la Touba taxaw na dakk Macky Sall fichier électoral bii nga confisqué mënuñoo dem ci ay élection nga nga téye fichier électoral bi mun ta nekk joxeel fichier électoral Macky amoo doole gendarmerie nationale nga yaakaar ak police ak ak ak armée pour armée nationale Sénégal police nationale gendarmerie nationale vous êtes parmi nous yéen suñuy frère ngeen ñun fii ñu ne yéen lañ fi nekkal foofu ngeen nekk ñu leen suñ seen suñ contribuable lañ leen di fayee ci loolu ngeen ne foofu ngeen nekk ngeen nekkal ñu fa war ñoo défendre kon même Macky Sall warut a tax ngeen bëgg jël réew mi bëgg a ànd ak moom ci tappaleem yi ak naxasaaleem yi ak ak ak jubadeem gi bari da ngeen di da ngeen di ànd di ànd ak taal Sénégal loolu gëm naa ne du ngeen ko def mukk ndax naka jekk Sénégal am na histoire te am na fu ca armée mos sa taxawee taxaw leen ci makki Sall mu mu joxe fichier électoral bi fii ci Touba nag li may daanele pour bañ a tooñ changé nañ maillage bi préfectoral police ñu ngi taayee rek bureau de vote yi yëpp changé nañ leen dagg ay bureau de vote yu bees te informé ba noppi fa ay ay ay nit te waxuñu leen ko. daanaka fi mu toll nii képp kuy dëkk Touba vote yii ba fi toll xamoo fooy voté ndax bureau de vote yi yëpp lañ changé te wax te wuñ ko waa dëkk bi ñun nag ñoom yi ngi tappale di nas di nocc ta lépp mook Aly Ngouille Ndiaye ko ànd mais seen tappale yooyu ñuy def ñun tamit doomi dëkk bi lañ te ñoo leen gën a miin dëkk bi ëpp leen fi mbooloo gën leen a xam lépp te sécuriser nañ ko it nag kon nag fu mu mën a sàcc ay élection wala muy tappale na ko def ca àll ba waaye Touba moom législative yi jàll yeenam législative yi jàll yeenan ndax législative yi jàll bañ ne ko jëlee fi euh, euh, Abdoulaye Daouda Diallo dañu woon du ko fi jëlee ba élection yi jàlle bon bo élection yi bon a tax mu jëlee ko fi euh, Abdoulaye Daouda Diallo kon tey jii bu ñu ci ay élection mu ñëwati ñu xoolaat ñu ne bureau de vote yëpp changé nañ leen te yëgaluñ doomu aadama yi ni bureau de vote yi changé nañ ko kon kooku duñ ko mën a nangu léegi nag wax ji wax jeex na ndax moom dynamique bi mu nekk ku ne xam ne dynamique gu la jógul ngir démocratie Macky amul dem xam amul démocratie niwut ci bopp bi fitna la bëgg a doxal fitna nag bu ko bëggee doxal fii la fekk sénégalais yi ndax moomul Sénégal te benn sénégalais la rek ci yi nag dooleel moom amu ko ndax moom moom di wax naan du ma ko def yooyu muy wax yëpp nit bu waxul dëgg day mer nit koo gis ñu koy laaj muy mer rek waxul dëgg nit kuy kuy wax dëgg du mer nit bu dëgg nee ci yow doo mer